parti bi nga xam ni moo jàkkaarloog marché bi jàkkaarloog magasin yi parti boobu nga abal ñu ko ñu toog a fa d'une manière provisoire ma ni leen joxuma leen ko mais yéen a nga fay toog te dama leen fa doon jëlee parce que lu fa nekk dafa doy waar tegoon nañ fa conteneur conteneur ba ay butitu jën lañ fa def sax yi du génn ñu fay jaay jën muy wal désordre bi am fa ñëpp du seetaan ma ni da ngeen fay jóg ba ñu ma ñëwee ma ne leen ci benn condition laa leen mën a may ngeen ngeen ngeen nekk fa en attendant ma defar Moylan, lan gis na ay cantine basse angle Serigne Fallou gis na ko jëm ñaajo yu nga xamni yu nga xamni yu rafet la mën bu ngeen mako defar ci digg bi ngeen toogandi fu en attendant ma pare samay liggéey su ko defee yeen yi nga xamni yeen fi tok ngeen doon priorité yu ñuy yóbbaat fële ñom ñu d'accord né ñom mën nañu jël en charge installation installation basse yoyu ñom ñoo def mairie yoonam ma defal leen autorisation provisoire ñu dem euh, promoteur bu len ko wara a defaral ba dama ko defal autorisation à faire des installations précaires et révocables manam ay installation la yu nga xamni suba buma ma nee la yëkkati ko nga yobbu nga yëkëti ko yobbu ñom ñoo organisé wu du défar fofu commune dërëmam dugg si wuñ ci dara kat te bo xolé 80 vingts places la ñun ñu ngi leen di préparal fu nga xamni ni place ak ñaar témèr dina fa nek donc fu junni place ak ñaar témèr bu paré su ko défé ñu ni leen nag dañuy def un euh, aménagement global boulevard bi yëpp ñu fa doon nekk autour de rond-point jaxaw ñëpp ñu ne leen amal nañ leen place ñu dégagé wu jóge fa bu ñu fa jógee nag aménagement bu ñu bëgg def ci boulevard bi dinañ ko mën a def parce que le problème bi nga xam ne moom am ci rond-point jaxaw ñuy wax dañoo xamul parce que rond-point jaxaw moom moo nekk débouché maanaam foofu lay nit yi nga xam ne ñooy jógee quartier yu gën a mag ci commune Thiès Nord muy jaxaaw muy SLM Thiali muy muy Grand Thiali ñoom ñëpp bu ñuy ñëw ci ville bi rond-point Jaxaw la ñuy génnee population commune Thiès Nord bu ñuy dugg ci commune Thiès Nord rond-point Jaxaw la ñuy génnee boo jëlee avenue Général de Gaulle oto yu fay jaar bu ñuy dem foofu la ñuy génnee foofu la ñuy jaar loolu moo xoj rond-point ja euh, Jaxaw en plus de cela Sam ñu fa doon jaaye ñu tas leen ñoom itam amuñu fu ñu nekk ñu wër ko. donc loolu mooy et donc ñun dañ ciy indi saafara mais balaa saafara bi mënoo ñëw rek tey tey tey rek am ko mooy da ngay dem d'une manière intelligente créer ay sites de recasement yóbbu fa ñu dégager ay espace nga valoriser ko tey déjà euh, boulevard Mao Doucouré boobu dinañ fa maintenir parking yi day am parking dina euh, am nañu fa ñaari hôtel hôtel bu nekk dinañ la may nga def fa parking muy collègue euh, EBC bi ak nice time bi mais aussi dinañ fa def ay espace vert ñaari jàq yi dinañ ko aménager def ci espace ak ay banc public mu mën a dem parce que boulevard boobu c'est plus de 300 mètres coow li yëpp commerçant yi 100 mètres lañ leen abal pour ñu nekk nu fa ñu def fa lu nga xam ni désordre du fa amati dara du fa amati te ku ñu jox place foofu yow yaay superviser 3 mètres sa kanam pour tali bi mu dégager wu passant yi mën dem en attendant ñu paré suñu travaux yu nga xamni de recasement le le centre commercial inshallah aussi dinañ ko attaquer défar ko et lepp lu nga xamni lu salté la lu tilim lu nga xamni mo wër marché centre commercial yépp dinañ ko dindi def fa ay parking def fa ay def fa gazon défarat centre commercial bi ñu xamni nak ñun lu baax lañu bëgg tay ñun ci wàllu cadre de vie buñ may wax ak aménagement lu ma lu nga xam ne moom la commune Thiès Nord du jéem si un aménagement à cadre de vie def na dañ ko saluer parce que Zawiya ñoon bi boulevard la bu nekk 800 mètres tey cantine amu fa dañoo re nañu éclairage ba moo gën a leer ci Thiès tey bande bande verte 800 mètres bande verte lañ fi bëgg a Les bancs publics effectivement l'entreprise a été défaillante on va reprendre les bancs publics donc dinañ fa def 24 50 bancs publics en coquillage Vous ko defaree vous, je crois que ku fa guddi ku fa bëgg taxawaa euh, doxantu di nga def ensuite boo duggee nga am boulevard boulevard Mao Doucouré général de Gaulle bi stationnement véhicule ñu réglementé ko avenue kumbando fen bi nga xamni mo jakar tali bu lo commissariat bi gis ngeen ñu ngi aménager ay parking pour que auto yi nga xamni mom lañuy téré ñu gaare bir marché bi ñu ni len kay len ngeen gaare fi kon donc c'est un aménagement global ñu ngi prévoir de de de l'avenue Koumba Ndofène manam tali bi joggé commissariat jaar rond point ngent jël boulevard ngent bi tali bobu c'est 2 km dañ fay reboiser téméri plante ak ak juroom benn fukk lañ ci prévoir bu nekk 80 arbre lañ fay def defar ko ba paré à partir du rond point ngent ba zac bi entre chaque poteau on va faire des bacs à fleurs 60 bacs à fleurs lañuy def donc ñun dañoo ñëw pour liggéey ñun dañoo ñëw pour soppi xar kanu kanamu euh, ville bi ci anam yu mu gënee pas ay xotti kanamu donc lu mu gënee lañ ci def. moo tax ñun euh, peut-être dañ ñoo comprendre mais askan gi lañ fi nekkal te saa bu ñu déggee askan gi wax lu ñu leen di defal lii gënaluñu amul benn gàcce dañuy dellu ginnaaw defaat leneen. waaw non autorisation bi mom mo ci nek provisoire et que man ci bopam comme luma wax wax dimbale len la nek fi euh dafa am lu nga xamni man xam nga nit dama ko abal ay organisation la c'est c'est une organisation bu am këyitam ñew ne abal ma mané ko provisoire ñom ñoo organiser wu xol lan lañ fay def donc c'est c'est c'est un problème interne mais luma ci wax moy ko dawal len yërmande parce que euh, d'abord c'est à titre provisoire bi nekk ci ci suuf ci ci jant gi du ñàkk du amuñu fu ñu amuñu ker amuñu dara defaral leen li nga xam ne lu mucc ayib ñu nekk fa en attendant mais na mais ñoom ala kulli yàllin du ñu perte moom dama koy wax du ñu perte parce que ñun suñu responsabilité mooy dañ fay nekk nagum mais ñooy prioritaire ëllëg si biir aménagement bi nga xam ne bu pare ñoom ñooy prioritaire parce que 80 places la ñoom la ñuy delloowaat foofu ñu toogaat tay même bu nekkoon weer la perte ñu te ñoñu même ñoñu du len fa fekkat bala ñuy ñëw aussi ñom aussi ñee ñoo leen di njëkk donc fofu amul benn problème donc lool la bëggoon ci wax maintenant euh, mel bobu nga wax ci ci euh, manam sen li bi d'abord sen président c'est un conseiller municipal à l'occurrence Ababacar Boy donc euh, waxtan nañ ci comprendre na aussi samay préoccupation xam na ni Euh, à titre provisoire nit mën na ko comprendre maintenant dafa am ñu nga xam ne aussi ñu ngi ci biir jaxaw euh, jëgg wax nañu ñett ay ay ñett pas lañu bon par respect du ma wax ci dara ci ñoom lu ñaaw mais kilifa aussi buy wax na ko na wax lu wóor parce que ñun lu ñuy jéem moo gën fuuf ak lu fi nekkoon te population yi la ñuy déglu du ñu déglu ay benn nit ñaari ñetti nit.

maanaam si wàllu suuf bi loolu c'est nag acquis il faut que nga nga nangu ko mais aussi yenn équipement marchand yi nga xam ni ville moo ko doon jël tey communes yi ñoo ko yor maanaam lu mel ni marché central ville moo ko doon yore léegi commune a ko yore mais dafa dafa sargi yi dafa doy waar parce que fu ñu toll nii avec acte 3 bi man jox nañ ma 24 permanents ci redéploiement personnel bi sama ko sama salaire sa masse bu fi nekkoon en tant que commune d'arrondissement 3 millions la léegi dem naa ci 9 millions c'est-à-dire tey même équipement marchand buñ ma jox marché central euh, jox nañ ma manam jox nañ ma xaalis euh, dina ma dina indi koppar mais day jëlaat damay jox koppar si loxo droite mais da koy nanguwaat si loxo gauche donc amul charge yu ñu ma jox ak luñ ma jox boo xoolee charge yi ñoo ëpp donc loolu aussi beneen beneen problème beneen bi aussi yaakaaroon nañu en tant que commune de plein exercice fonds de de fonds de concours bi dina am doole parce que commune d' arrondissement bi fi nekkoon 6 6 millions la doon am fonds de concours Nous avons 8 millions de fonds de concours ce qui nous permet de réaliser C'est ce lay permettre population yi faire seen que ni mairie baa nga def mais loolu tey boo 6 millions ñu jox la ñu 8 millions mais le bon sens. fa femme. donc madame, si du point de vue euh, finance des pour nous accompagner waat commune de plein exercice parce que commune de plein exercice charge yi day bëri parce que dafay am administration day am personnel permanent personnel contractuel lu y da fay diis te bu amul les les mesures d'accompagnement en termes de recettes, aussi ak mom ak euh, commune d'arrondissement tol te situation bobu lañuy dund. mais euh, perception municipale euh, trésor souvent il y a un problème ay jafe-jafe am sax ay nit yu mais yii seen avant ñu toog ay 6 mois ay Wow, ay vision très simple nous avons une perception comme un partenaire parce que tey comme nous, koy loi bi moo tax ñuy wax sax xamuñu dara si wax da ngay dégg ñuy wax woy maire bay ngi maire bay ngi jaay cantine maire bay ngi jaay suuf maire parce que xamoo nu mu affaire tëddee maire maire mënul téye xanaa maire bu maire bu rek du jaay wala du jaay ay cantine loolu mënul dire parce que loi euh, yoon dafa am nu mu dox ñun suñu perception moko yoré perception moy dem aussi jëli suñu xaalis moy recouvrer ñun suñu yoon ñun dañ koy wax perception feulé dal am nañ ah, dafa naa bo fa nous di fa fekk nangam mu dem jëlal ñuko ñun duñu laal xaalis duñu Nous, xaalis ñun ñun dañuy ordre bi mais ñun duñu ko laal virement donc ku mel c'est un partenaire stratégique ki nga xamni mo lay jël ah, lay mais kooku dafa nekk un partenaire ñun loolu la ñu xam jë njalbeen bi ba ñu ñëwee partenaire nag da nga koy mettre dans les conditions mu def liggéeyam mooy que li nga xam ni moom la moom la woo pour mu def liggéeyam mu nga teg ko ci loxo moo tax bu ñu ñëwee ñun au niveau de la perception dañ ñoo wax da ñoom lu ñu soxla pour ñu mun ñoo jàppale si liggéey bi loolu ñu ñu wax ni loolu la ñu soxla loolu ñu defal leen ko bañ leen ko defee maanaam agent yi nga xam ni euh, amuñu woon ñu ngi doon liggéeyal perception te kenn daawu leen fay ñu ni leen ñu ñeen dimbale ñu jàppale ñu jàppale leen lool motiver leen ci li nga xam ne ñëw ñu liyee ñu ñu wan leen ni ñun ak yéen ay partenaire la loolu moo rax ñun problème yi nga xam ne yeneen yi am na xëy ma de xaw ma ñan ñoo am problème mais ñun commune Thiès Nord ak perception dañuy sant yàlla bu baax euh,

ak luñu ñu yalla Dans ak yali dama ni tay complexe jeunesse compétence la sport bañuy ñuy ñëw fekk nañ fi euh, euh, jeunesse bu amul un stade municipal fonctionnel tay sur fonds propre, on a mis 12 millions pour que nous réfectionner la salle des fêtes les locaux euh, esplanade avec des partenaires dinañu indi gazon naturel défar vestiaire bi rendre ko fonctionnel et on aura un complexe neuf sur le plan santé malgré que euh, euh, khalis bi nga xam IMF AMF jël na dem poste de santé bi sur fonds propres def nañu 7 millions 500 pour tambalé poste de santé Keur Issa poste santé Ngent am nañu l'association des femmes diplomates Nous saisir nañ leen ñom paré nañu pour à hauteur de 10 millions pour le poste de santé de Pognane bu aussi euh, au niveau du marché central les dégâts de marché sam amuñu def un site de recasement ñu camions camion frigorifique ñu un site 600 mètres carrés dañ koy une plateforme 12 millions la fay pour dem aussi nous avons dégagé nos boulevards le système d'éclairage aussi sera renforcé le réseau d'entretien on va dinañu euh, rond-point base tali boobu dinañ ko dinañ ko éclairer bëgguñu gis benn poste d'ombre dinañu défar tali bi nga xamni moy route de Morolan bi bëgguñu fa gis benn poste d'ombre tali bi nga xamni moy mooy romb Saint-Jean-de-Dieu bëgguñu fa gis benn poste d'ombre boulevard Ngent bi dinañ ko defaraat axe bobu ba duñ fa gis benn poste d'ombre la route nationale rond-point Ngent ba Kawsara duñ fa gis benn poste d'ombre que la euh, la route Kër Cheikh défar poste d'ombre donc du point de vue éclairage dinañ ko défar mais du point de vue euh, cadre de vie aussi incha ni di yi dinañ gis parce que Xavier Nione dañ ko bëgg def un espace bu convivial avec connexion wifi défar ko ba nga xam ñëpp dinañ fa mën a dem. donc waaw. monsieur le maire mu ci émission Thiès soit Malay. Hmm. tay est-ce que Thiès yi ñu ngi fay seen impôt seen taxe ñu ngi seen euh, faire de bornage ci yenn domaine nga xam mais loolu mooy problème ñun suñu budget ngi nii suñu budget 814 millions la xam nga fu may wax ak yow <laughs> recouvrement bi ñaata la 80 millions 5 mois. quatre-vingts millions ça veut dire que y a parce que nag nit ki balaa nga koy wax liggéeyal ñu danga lu lu la war da nga koy def et loolu aussi maa ngi lancé un appel pour que au moins Thiès waay comprendre que ni sañ-sañ que ni mairie bi def lu ma làmp mairie bi tonn lu ma mbali mais ci budget 814 million nga nekk 30 avril ñu ne la recouvrement ba nga def 80 millions la dangay ngay wax xam ni y a problème te ñu ngi jéem nag. et loolu aussi commerçants yi nga xamni ñoo nek marché central ñoom itam tay comprendre nañu ba wara xamni légui ñom dañ ñoo wara jappalé parce que en son temps avec la ville tok nañu 20 mois fay ñu won mais ñun bañu ñëwé quand même macha allah ñoom ñu ngi fay donc ñu comprendre que xaalis bobu ñuy fay demul lulul ci askan gi parce que li ma wax ni mom lañu wara réaliser entreprise yu ko wara défar defar dañ leen di wara fay té du joggé sama poste du joggé ci poste kenn si si ci taxi yoyu ak impôt yoyu la dajalé dajale dem fay ko donc fofu aussi bëgg naa beneen bi aussi moy comme lu nga wax moy si frais de bornage bañuy ñëw dañoo hérité juroom benn lotissement muy Madina extension chapong Coonaax Zac Nord euh, Poñen euh, kii euh, lise technique donc juroom benn lotissement donc mat na lu mat 3000 parcelles yu nga xamni joxé nañ ko mais buñu xolé ñi nga xamni ño fay frais de bornage lu la ville ñaar fukk junni la doon def ñun def nañ ko fukk moo tax waxtaan ci service déconcentré de l'État que ce soit le euh, domaine Néna ko inshallah, allah si semaine bi dina def communiqué de presse pour xamal fi ak ñaari weer juin ak juillet ku fayul te met fayo frais de bornage commission bi dina la désaffecter manam dina jëlat sa terrain joxat ko benen Cees parce que mënuñu la may terrain ne la yow lu war la commune bi manam frais de bornage fukk jundi terrain bu wara jar ñaari millions ne la joxel mairie bi fukk mil fukk jundi nga mom sa kër nga tek sa terrain bi foofu kenn oh, et au même moment am na yeneen ceeswaa yu soxla kër du jëndi kër ay millions kon nag ñu nangu ko ci yow jox ko ceeswaa bu bëgg kër bu bëgg mun a fay fukki junni ñu jox ko mu dem moom am fu mu dëkk moo gën ñu lotissé bàyyi àll bi noonu kenn du fa dëkk ah kenn du fay frais de bornage mu nekk ay dépôt ay zones yi nga xam ni mbalit lañ fay sot ñun commune Thiès Nord incha allah dinañ jël seen suñu matuwaay pour loolu bañ am. voilà du la du gërëm ñëpp du sant ñëpp surtout nag la presse. donc ce que ngeen ma defal c'est que Info des dafa dispositif dans le dispositif communicationnel de tout le Sénégal que ce soit au niveau national que ce soit au niveau international vous faites la fierté donc nous avons aussi aussi professionnalisme bi nga xam fait. Nous ngeen di vous du Nous avons fait des choses du parce que vous da kenn mënu koo fay bu ñu ñëwee ne yow yaay maire donc desatuñu la dara moo tax ñun mbubb boobu la ñuy sol gis nga tey samedi nga ñëw sama bureau dañuy liggéey lundi samedi ba dimanche pour askan gi kontaan lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu bëgg a xamal askan gi mooy euh, liggéey moo tax ñu jóg liggéey moo tax dëgg la nag boo dee yëkkati dina am ñu wax dinañu am ñu yuux mais dama wax ni ñun nag ay politiciens lañu. ñun ay poli homme politique lañu ku def depuis 88 nekk ci langue politique bi du du ay ay yuuxu adversaire politique moo lay mën a delloo ginnaaw walla ay ñetti nit ñaari nit ñoo lay mën a delloo ginnaaw fii la ñuy fal askan gi la ñuy déglu bu ma nee askan gi dañuy gis ko lu ko jar askan gi jóg ne monsieur le maire lii ngay def nii ànd ñu si boobu temps ñun leen awla yooyu ñu teg ko donc tànk loolu amul ñun ñu ngi jàpp ne askan gi ànd na ak ñun te lu ñu jàpp ni mooy bu ñu liggéeyee ba pare ñëpp dinañu xam ni dañoo bëgg suñu

ci marché yi ñu xam ni ñun on n'a pas des maires de dimanche amuñu ay maires yu nga xam ni duñ leen gis ñu ngi fi ubbil suñu bopp pour que askan bi yëpp xam ni ñooñu fi teg te ñoom la ñu war a liggéeyal. mbokk yi xarit bi doon seetaan di déglu ci émission Thiès Soir Soir tey ñoo dalal Lamine Diallo nekk le premier magistrat de la ville nga xamante ne moom mooy bilan ci li nga xam ne jot na ko def fii ci biir euh, Thiès Nord dinañ jox dig daje ci beneen numéro incha allah.